Patsy sa di yaa ngi déglu suñu kër radio. yéen ñi di déglu rajo suñu kër ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen fidélité. sunuker.com. sunuker.com.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

donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l' énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amusi si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am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 nañu xamee woon pour seen bopp. moom ma xëy ci loolu. ah président ne waaye nag yàllaa ko xëy ci loolu. ñu waxtaan waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au l' intérieur. en tout président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragal ba loolu de wax dëgg yàlla xam dama xaw diis. parce man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise a ne ma daal il faut nga dem foofu parce que loolu moomu gënal.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 mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey jii nag di jeudi le 21 octobre 2021 ñu ànd ak mbégte bu rëy rëy di dellu si waat ci seen émission di faram les faits saillants de l'actualité du jour l'actualité nationale et internationale di nuyu soxna Rama di ko ñaanal jàmm ñaanal wër moo njabootam di nuyu auditeurs yi nga xamante ne ñoo éparpillé un peu partout dans le monde te di ñu déglu di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot di gërëm ñi nga xamante ne ñoo ñuy jàppale waaye aussi di jéggalu tey ci bis bi suñu site internet bi dafa xaw a down ñu am problème ak ñi nga xamante ne ñoo koy host Euh, di yaakaar ne rek dina gaaw dellu siwaat di jéggalu ñëpp waaye loolu bokkul ak rajo bi dara ndax rajo bi moom soo téléchargé application bi rek da koy déglu moom bokkul ak site bi euh, di gër nuyu Ahmadou Diop ak Abdou Khadre Fall ñoom ñi nga xam ne bu waxtu wi jotee rek ñoom it ñu connecté wu toog di xaar sujet bi pour wax ci seen xalaat ñuy rappeler nit ñi mën nañu woote ci Skype rajo sunu kër bu ñu bëggee participer wala ñu woote ci numéro yi WhatsApp bi 920 318 95 25 bu ko defee ñu jox leen kàddu gi. Euh, démb ci sunu waxtaan wi amoon na ay sujets yu important yu nu laal euh, te ñenn ci ñoom sax jeexal guñu ko woon te loolu yëpp bokkoon ci sujets yi nga xam ne presse bi laal na ko. tey ñun ñëpp mu concerné ñu ndax boy dëkk ci réew moo xamante ne dañoo bëgg nit ñi ignorant devoir la pour citoyen bu nekk nga jéem a jàng sax pour mën a xam lan moo xew sa réew daal loolu c'est un devoir bu ñëpp war a def bañ di xaar ñeneen di leen ko defal ñeneen mañ leen leen junj waaye yéen yéen a war a pasteefu yëngatu ci seen mbir li xew ci seen biir gox ngeen tàmbale ko ci loolu di xew ci seen biir yi commune ndax am na ay bénéfice ak ay privilège yu bari yoo xamante ni yéen en tant que citoyen war ngeen ko am mais comme que ñun tubaab bi daf ñoo xañoon suñu ay droit bu yàgg yàgg yàgg yàgg te du ñu forcer suñu ay devoir ñun bi ñu demee ba remplacer leen dañoo dem ba yore jikko yooyu mooy dañuy xañ suñu citoyen yi yi ñu nekkal te tane leen position di leen abuse ñun dafa mel ni abuse ci ñun la fekk baax te loolu il faut que nit ñi conscience yi suñu fekkee nit ku silu ku ku ku conscient ci loolu sax di ci léegi liggéey ñu ne day jaay silwiise wala day jaay affaire te am na ci ñun ay citoyen yoo xam ne modèle yoo xamante ne génn nañu ñoom ci canevas boobu nga xamante ne ñun ci la ñuy dund di jéem a def lépp seen kéemtalaay kàttan ngir dundin bi neex ñu ñëw di indi ay projet waaye ñun projet yi ñu yaakaar yëpp mooy nga ñëw indi projet bi financé ko ñoom ñu ñëw rek ñëw rek jariñoo ko daal ñu bari ñu lay lijjantiloo ci sénégalais yi seen ñàkk xam-xam moo tax ñoom noonu la ñuy réfléchir waa lijjanti leen ñu ay projet foofu ay lii wala la mooy li may wax toujours rek sénégalais kaay lekk la gën a xam alors que mënoon nañu booloo jéem a gëstu ba xam mbir yi wala boo ko xamulee nga jege ko ko xam sax mu lay jàngal ndànk nga koy laaj ay question su amee jot mu toog ak yow di la jàngal bu yàggee nga xam loolu beneen fasinu beneen façon jàng parce que jàng nekkul dem ci salle de classe rek salle de classe yi dañoo jël ay nit ñu école ñëpp ko mën a ubbi man mën naa ko ubbi yow mi may déglu mën nga ko ubbi ñëpp mën a ubbi école saa yoo amee borom xam-xam bu am pédagogie mooy technique yi tax nga mën a jàngal nit mu jàpp ko parce que jàngal yombul man mënumaa jàngale mais am na ñoo xamante ne am nañu ay yoon yoo xamante ne moom lañ lay jaaral ba li ñu lay jàngal nga jàpp ko moom la tubaab di wax pédagogie du ñëpp a ko am ku ne mën naa ubbi école école bi dañ ko organiser rek tubaab yi daal di wut ay ñu am xam-xam ñu jàngal leen technique yooyu ba pare yóbbu leen ci école yi ak ci lycée yi sixième ndaare ñuy jàngalaate yow nag bu fekkee ne yow ci domaine boobu mënuloo fa jàngee parce que français bi lakk bi ñu lay lakkal du sa lakk te loolu ñi mu gàllankoor ci sunu sunu sunu réew yi ay génération ak des générations si tu ne penses pas comme le blanc wala ngay réfléchir comme noom te ku ci nekk yàlla may na la façon bi ngay réfléchir lakk bi nga dégg rek nga gën a mën a réfléchir man olof laa gën a dégg beneen lakk bu may lakk olof laa gën a dégg moo tax nag te dégguñu ko sax bu baax dañ ciy góorlu parce que am na lenn loo xam ne bu ñu ko buggee wax faaw ñu ñëw ci français bi am ba ay réflexion yoo xam ne bu ñu ko bëggee développé faaw ñu ñëw ci français yeneen yi tamit faaw mu ñëw ci anglais ku ci nekk li nga jàng ci lakk bi nga ko lakkee saa yoo ko soxlaa ci lakk boobu lay gën a ñëwee wala gis nga xam-xam dafa doy waar dafa garaaw donc bu fekkee ne yow mënuloo ko jàngee ci l'école bi nga xam kenn nit ku nekk ci koñ bi bien que temps am dafay précieux vraiment mënuloo ko ko fay ndax li gën a précieux ci àdduna mooy temps moo tax ñoom tubaab yi par heure la ñuy fay nit par heure léegi nag yow mënuloo fay kooku nit mais jege ko bu amee jot rek nga laaj ko bu loolu weesoo beneen jour bu amee jot nga seet si ko di ko seet si xam nga sunu mag yi noonu lañ daan jàngee dañu daan ñëw boo gisee sëriñ si li tax ñu yore ay taalibe xëyuñu rek ñëw nit ñi ne kaay kaay ma jàngale na gars yi ñoo xam ne diw am na xam-xam ñu dem comme que mënuñu laa fay ñu lay bayal sa tool comme mënuñu laa fay ñu lay ñu lay raxasal fompal sa kër wala ñu nekk sa disposition boo dee yónni nga yónni leen waaye nag xam-xam bii dañ koy dañ koy wudde bala ñu fiy jóge dañ koy am buñ koy am nag di beru parce que loolu moo doon prix bi tubaab nag dafa jël capitaliser ko créer ay ay ay établissement ay tabax ay bâtiment am ne saa yoo xëyee telle heure ba telle heure damay jàngale bu la jarañee bu la bu la jaralee dee ma fay par weer ngay ñëw ma lay jox ay xam-xam léegi nag xam-xam boobu ñoon jàng bu ci ëpp léegi nag mu ngi ci internet bi ndeysaan lépp loo bëgg a xam ay documentaire nga jàng ci ay livre yoo xam ne dañ ko daan nëbb ñu ne ko fang waaye ku dul liir doo ko gis ñun nag dañoo bokk ci ñi nga xam ne du liir tey mën nañ la jàngal naka ngay defee naka ngay éditer vidéo nga ko nga topp step by step yi rek nekk professionnel loo xam ne ay nit daan jàng ñaari at ñu ko koy wan soo amee sa matériel rek nga jàngal ko jël sa temps discipliné di nga ko mën waaye amuloo diplôme bi mais mën nga ko da ngay dem ba nekk ingénieur te doo am diplôme te pourtant li ingénieur yi xam moom ngay xam ndax léegi documents yi yëpp ñu ngi ci biir internet bi ah soo bëggee nekk mathématicien sax mën nga ko nekk mais nag ñun dañu nekk en retard parce que ba tey am na ñu ci profito Sénégal ñoo xam ne fu toll ni ay millionnaire lañu bari alal lool te ci affaire technologie bii ñuy xeep ci lañ koy ci internet bi la ñu koy jàngee donc dañu jege ñi nga xamante ne ñoo am xam-xam ñu tarbiyu leen neexal leen naxanteeg ñoom ba jël xam-xam yooyu dugal ko ci seeni ay projet yooyu ngir ñu mën ko réussir yëngatu ci sa sa sa gox bi li fay dox nga comprendre ko mbirum santé bi ni muy doxee bénéfice yi nga mën a am ci réew mi nga am ko bu ñu ko defee rek euh, pauvreté bi nga xam ne c'est une pauvreté accentuée qui va crescendo dina wàññeeku da wàññeeku ci réew mi parce que gis nga xam-xam boo ko amee rek gars yi respecté la même même même même ñi ñu gën a yaakaar nii ñii muy politicien seeg sëriñ si soo amulee xam amuloo njariñ parce que ku amul xam-xam kenn kenn respecté wu ko yàlla sax yàlla xoolal yàlla ci alxuraan ñi ñi ñi xam lay waxal maanaam ñi xam ñoom lay waxal te ki xam nag mooy ki dem jàngi ki jéem a wut ba xam moom la yàlla di waxal parce que kooku day neex a waxal mais ko xamul dara waaw loo bëgg rek ma ne ci waaw man kay loo bëgg rek ma ne ci boo nekkee ci parti politique sax yaay doon mbalit mi billaahi kenn du la jox say droit moo tax da ngay wuti xam-xam c'est pas pour rien ñuy wax hadis boobu ne yonent bi nee na nga dem wuti xam jar na nga wuti xam ba siin loolu la gars wax dañ ko wuti ji ndax booy wax nit mu jox la sa gëdd li wutale nit ñi xam-xam la moo tax yàlla bala muy bala mu doon yónni sax ay ay yonent da leen di jàngal moo tax gis nga gis nga la Coran là c'est un livre di d'histoire C'est un livre qui enseigne aux prophètes l'histoire. L'histoire des autres civilisations, l'histoire des autres prophètes. bu ko nous ñoom comprendre parce que boo xamee sa ça sa vous da day yomba xam la ne niw parce que y a beaucoup when you go to my closet on the right side there is an envelope is under the envelope maa ngi de boo xamee histoire u démb parce que am na fee yu bari yoo xam ne day répété gis nga bañ biñ doon bañ yonent yi bu ñu yóon bu ñu ñëwee wax seen mission boo leen seetee boo xoolee ci alxuraan bi man nag jàng ko ba mën la wax ay saar waaye dama koy liir de dama ko liir bu baax ba xam histoire yi ni mu ni mu demee la fan laa ko liire en français laa ko liiree fan laa ko liiree en en anglais laa ko liiree bu la yitteelee jarul kenn ñëw di la wax naka lañ ko waxee te looloo gën nag ndax waxu yàlla la waaye nag yow doo arab ni nga ko comprendre rek nga koy waxee te mën na am sax boo nekkee olof jàng ko arab tu doo xam compréhension bi ci normal parce que toujours tu reviens à ta langue ata ta langue d'origine ngay ci wat, donc langue boko comprendre rek meun nga ko jang lire histoire boko lire da ngay gis ne histoire ñu ci bari ci ñom c'est une répétition rek yalla ma yoni ah yow da ngay fan rek yoni ma yoni mo yow topal fële magicien nga yow yàllaa ma way ki da fay mous mous lu jox len ko khalis mu noppi yalla ma yoni ah ki da fay wut ascension ci sunu kaw yoy rek yoy rek mo fa mo fa nek mo waral ba tay tamit ñu bax ñi lu ñu wax rek dañ leen di weddi ba tay ji ni sunu gaay yu bax yi réellement yu nu am ñu ngi leen di weddi di top ay charlatan bu ko defee nga comprendre ne connaissance dafa am solo moo tax il faut que nit ñi ñu dem góorgóorlu élection locale yi ñu seet li nga xamante ne moom moo gën ci ñoom li gën ci seeni communauté ñu commencé cee yëngatu yéen a ngi gis fu mu toll nii politiciens yi comme li ma leen ci doon wax rek politiciens yi Sénégal dañoo doy waar les plus paresseux mooy ñooñu parce que ñoom dañoo defe ne da ngay toog rek di jox nit ñi ay ordre waaye yow doo liggéey seen liggéey bi yëpp xam nga lan la mooy dem di wax nit ñi ci wax rek lañ ko teg di wax nit ñi pour ñooñu ñu topp leen amuñu liggéey salaire yi ñuy fay ci maire yi ak ci commune yi ak terrain yi ñi nar a jaay ci yooyu la ñuy liggéey moo tax faaw ngeen liññantiku ñan ngeen di fal c'est pas parce que siiw nañu que nga leen la war a jox c'est pas parce que am nañu ay diplôme te amuñu liggéey ñu ñëw di leen làkk ay français rek ak ay anglais te amuñu liggéey parce que ku amul liggéey jàng bi ko jàngal amulu ko njariñ bu ko defee nag yéen ngeen seet yéen ñan ngeen di voteel ñooñu ñan lañu xam leen leen du ay affaire mbokk parce que yéen yéen a bokk fi ngeen dëkk donc waratul nekk affaire mbokk yéen seen affaire commune la yéen a ko bokk lu fay yàqu yéen ñëpp lay yàqal moo gën a garaaw sax moo gën a important que élection ay ay ay élection député ay mm, ay ay président lu leer laa la wax élection locale yi nii moo ëpp njariñ ci yéen gox yi communes yi que ngeen di fal député ndax député yi ay liste ngeen di fal alors que ñii ay nit ñooy ñëw présenté wu ne maa bëgg nekk seen maire da ngeen ci góorgóorlu de lii lu ma yitteel la moo tax ma ne woon dinaa ci waxtaan démb xaju ci woon da leen licceel c'est pas parce que doomu chef de quartier bi mooy candidat ngeen defe ne moom moo war a nekk maire déedéet am na ñoo xamante ne seen baay yi dañoo profité ci nguur gi ngir defar seeni doom yi yóbbu leen ñu jàng ba ñëw ñu bëgg ñëw ne leen nag léegi seen doom yi ñoom ñoom ñoo leen di jiitewaat yow ay yéen kon yéen kan ngeen di don ay vrai citoyen ngeen di fan doomu ñi fi nekkoon démb rek ñi ñu faloon seen baay démb te tubaab bi defoon une vraie sélection tubaab bi lii yëpp ñoom ñoo ko calculer képp koo xamante ne doomi buur nga woon wala doomu sëriñ yi dañ leen doon éviter ñu jàngi parce que xam nañu ne rey nañu le dernier résistant Lat Joor ñu récupérer ay nit ñoo xam ne dañ leen doon wax sax ay baadoo la ngeen baal ma ci jamono jooju ñooñu la ñu récupérer seen doom yi dugal leen ci école yi mais boo dee doomi buur wala doomu sëriñ ñu yaakaar ne di nga di nga hérité mbooloo te tubaab dafa gëm affaire ADN ama nga affaire ADN ñu ñoo koy caaxaane nii mais am na ay am na ñoo xamante ne seen deret ay yëfu saay-saay rek lañu la la xam te seen deret la dugg nag ah gisuloo bu bu bu ñuy recruter pour ñu dugg seen dëkk yi dañ lay defloo ay test laaj la ay ay histoire ndax seen famille amoon nañu am jabet pourquoi bu sa famille amee jabet yow nga war a exposer pour gaaw mën a am jabet que ñeneen ñi ci sa ADN la bokk maanaam li tëkk yuq bi yuq bi ci yuq bi lu fay yàqu rek day toppi am na ñoo xam ne seen yuq yi moom ay musiba rek la ñuy nekkee tubaab yi nag yooyu la xam ñu ne doomu buur yi wóorul doomu sëriñ si wóorul dem récupérer ñeneen feneen jàngal leen indi leen teg leen fi ñooñu tamit dañoo make sure que ni seen njaboot yi dañ leen toppatoo am na ci ñoo xamante ne ay tubaab lañu maa ngi leen fi doon wax keroog benn doomu Blaise jaañ boo xamante ne mosul teg tànkam Sénégal ma nga woon France te nekk fa maire sëtam la sax na ma maa ngi jégalu sëtam la woon benn sëtam léegi nag ñi fi nekk ku ci nekk dangay seet naka ngay formaté sa doom ba bu ëllëgee mu continuer reñ boobu gars yi loolu la ñuy liggéey léegi nag yéen ñi nga xam ne ay baadoolal parce que loolu bu ñu ci doon dox Macky Sall du doon président de la république waaye gis nga dafa ñafe dafa ñafe yéen tamit il faut que seen boobu ñu break ko su ngeen ko buggee break nag ci élection locale yi ngeen koy tàmbalee waxuma nag kuy doomu kilifa rek dañ la war a contrat waxuma loolu su fekkee am na capacité te moom it nekul ci ligne yoyu nga xamantene mom lañ leen tracel man ngeen man nañ ko jox chance mais yeen faaw ngeen jox seeni bop seeni chance faaw ngeen jox seeni njabot seeni chance parce que ni leen politiciens yi di di di bëgg erite, hériter famille yoyu non lañu bëgg def tamit di hériter di hériter trône bi nga xamne ne mo leen di jité ba faaw té loolu faaw ñu brek ko brek ko ci sëriñ si break ko ci ci ci politiciens yi parce que ñoo ñoo ñu séq su ngeen ko bëggee break ci sëriñ si nag da ngeen di nangoo jaamu yàlla da ngeen nangoo jubal da ngeen di nangoo sellal da ngeen di nangoo leeral bu ko defee yàlla yàlla li muy maye démb bu fekkoon ne dañoon topp ay yenn affaire du yegg si sunu réew mi de ñu nit ñul duñ si laal parce que yaakaaruma ne am nañ benn yonent bu ñul kuk comme ñun waxuma nag ñooñu nga xam ne boo leen waxee ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñuuloon di la defal ay description xeesul woon ba mel niñ naar yi nangam sangam di indi ay kii déedéet ñuulul woon kon ñun c'est ce qui nous intéresse am naa fi xay xaritu américain sax yoo xam ne ci yooyu la def koi di la jox ay Jésus yu ñuul nee nañ Jésus tubaab yi ñoo jaxase woon affaire yi c'est pas important ñuulul woon comme ñun waaye li yàlla doon joxe du deñ de yàlla cëram li muy joxe du deñ moom xamul xeet parce que yàlla wax na ko ci xalquran amul xeet yi xamul ay xeetu lii couleur yooyu gisu ko waaw xam naa damay damay yamale waxtaan wi foofu parce que tey ci dama bëgg a am gan boo xamante ne dama ko bëgg a dalal pour un peu varier waxtaan bi mais aussi ñu jàng ci ñeneen ak seeni expérience jàng ci ñeneen parce que c'est des hommes de terrain ndax même lu ñuy yëngatu yëngatu yëpp nekk ci rajo yi wala ñu nekk ci réseaux sociaux yi di mbeleleli rek am na ay sénégalais yoo xamante ne ñoom ce qui se passe sur le terrain ñoom ñoo ko gën a xam ñooñu daanaka mën nañu dem sax ba xam élection kan mooy gagné parce que ñi ngay interactal chaque jour rek di nga xam ñi nga xam ne dañu lay nax pour jël li nga bëgg dem sa yoon waaye bu ñuy voteel ñoom ñu ngi ci ay ñu ngi ci ay connotation familiale ba léegi diw moo gën a siiw moom la ñuy dégg chaque jour donc moom la ñuy voteel ñooñu xam nañu ko moo tax ma bëgg a dalal Abdoulou euh, Abdoulou nag xam naa dina dugg léegi présenté boppam benn sénégalal boo xamante ne dañuy def ay caravane ay caravane yoo xamante ne ñoom bu ñu ci demee dañuy dugg ci réew yi ci village yi les plus reculés di jàkkaarloo ak sénégalais yi di waxtaan ak ñoom di leen jàngal waaw moo taxoon ma sàkk woon fan yële yëpp pour euh, dalal ko mais plusieurs fois amuñu woon chance euh, amuñu woon chance dalal ko tey nag ma wax ak moom démb mu ne ma tey jii dina ñëw moom laa bëgg a dalal ci deuxième partie bi euh, ma ma ma bàyyi ko mu nuyoog sunu mbokk yi salaamaaleykum Abdou Assalamualaikum, salaam sëriñ ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi bëgg lool ci waaw ñu ngi lay dégg bu baax a baax a baax macha allah. Abdou ma bëggoon nga nga bëggoon nga nuyoog mbokk auditeurs yi après nga présenté ñu euh, sa structure ak li ngeen ciy def ci réew mi. jërëjëf invitation bi tey. di nuyu ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi may déglu à travers ce média boobu euh, di leen baalu àq déjà ci rendez yi nga xam ne jotoon nañ ko waroon a am. Mhm. te man ma manqué woon ko. ma ci bu wér a amul solo. Euh, bu loolu wéyee ñun ndaw lañ rek Abdoulou dëkk Sénégal Dakar ci benn département bu ñuy mais jiite benn structure bu dajale jeunes yi ci Sénégal yëpp donc nekk benn association boo xam ne c'est national. dajale toute la jeunesse sénégalaise ensemble ñuy liggéey pour une construction collective de modi di ànd tabax réew mi te yàlla rek tax ndax li boo nekkee ci réew yàlla may la kàttan hmm. yaakaar naa sa rôle la nga participer ci construction réew moom donc une hmm. association bi ñu loolu lay dox moom nu tudd association bi ci R3 euh, réseau élèves étudiants entrepreneurs waaw réseau élèves étudiants entrepreneurs entrepreneur. Wow. dajale élèves yi ak étudiants yi ak entrepreneurs yi jeune porteur de projet de développement hmm. donc lolu moy réseau lolu lolu loolu ngeen ko créé. Nous créé il y a trois ans. Mm-hmm. donc nous avons ko créé depuis 2018. ci lañ ko créé biñ ko créé léegi nag activité yu bari jaar na fi des fois bu ñuy nettali liñ def sax da ngay yaakaar ne réseau bi existé na y'a vingt ans. dëgg fekk xam nga réew lépp buñ ko waree defar moom. Mm. boo jugee ci lii rek da ngay daal ci leneen moo tax noppalu du moo tax depuis biñ ko créé léegi daanaka liñ def ci activité bari na lool maintenant mu dugg ci domaine yu bari nag. Mm-hmm. yenn ay activité yu dugg ci domaine économique la. Mm-hmm. yenn yi day activité yu dugg ci domaine social. Mm-hmm. yenn yi de activité yu dugg ci domaine culturel. Hmm. man man bi may jot information bi ci Bamba gay Lindor mom moo ma ñëk partager fekk tok na lu bari di partager ak man seeni activité ak seeni programme makoy nuyu de passage mais euh, da ngeen ma gis leen ngeen di voyager jóge de wara def ben caravane buy jóge Rufisque jóge Rufisque dem kaolak suma joomulé juumulee kaolak dem dem sor hmm. ma gis ci ay ay ay pel ay ay ay ay mbana ay kay ay affaire gaz lu nek ak ay tieb ak ñoom seen lan mo waral ngeen di def caravane bobu ak bu ngeen demee ci dëkk yoy lan ngeen fay def waaw xam nga li mata a bàyyi xel mooy réew bu ko ay nit bokkee mm-hmm. li wara a nek sen taxaway moy ñu and bolo bok bok bay deug la xam nga rew mi ay région ñi ñi ngi Dakar ñi ngi Thiès ñi ñi ngi Kaolack ñi mm. ñi ngi Casamance mm-hmm. ñun dafa bokk ci suñu première mission mooy fu ndaw nekk ci biir Casamance ñu boole la ak yeneen ndaw ngeen bokk ndey bokk baay xam ne yéen ñëpp ay sénégalais ngeen. la. ñun suñu xel du nangu benn ndaw dëkk Dakar jóge fa dem ba Ndar war fa liggéey di fa tumuraanke te mu am seen te mu am ay moroomi ndaw mi fekki foofu. dëgg moo tax ñu dañoo nekk ci logique bu fédérer toute la jeunesse sénégalaise te moo di ndaw yëpp ñu boole leen ñu bokk ndey bokk baay moo xam mhm. parti politique boo mënti bokk moo xam këru diine boo mënti bokk moo xam loo mënti jàng muy sa domaine de formation mhm. li ñuy njëkkee xeex mooy fu ndaw nekk rek war na fa mën a nekk ambassadeur ci yeneeni moroomi ndawam yi nekkul foofu mhm. loolu moo tax ñu taxawal benn projet tuddee ko caravane de la jeunesse nga xam ne bu jotee dañuy dajale toute la jeunesse sénégalaise maintenant ñu am benn point de départ ak benn point d'arrivée c'est-à-dire jóge ci benn région wu Sénégal di wër ba teeri ci beneen léegi région bo caravane ba dem rek dañuy xool loo xam ne amaana buñ ko fa defee mu jural njëriñ waa localité boobu ñu def ko bàyyi leen ko fa mu nekk ñoom loo xam ne loolu la ñuy gagné ci ci ci ci caravane. Mm. caravane la buy jugee Dakar déjà def nañ ko ñetti yoon. Mm. bi passé euh, te Bamba Gueye wax la ko noonu moo nekkoon troisième édition bi. Mm. même itinéraire euh, itinéraire bi yi sax déedéet. déedéet déedéet kon du am solo duñu mën a ah. laal ñëpp. Ah. édition bu ci nekk rek dañuy tànn benn itinéraire xëy na nag bii yoon mhm. euh, point de départ bi moom toujours mhm. Dakar la parce que association bi base am Dakar la mais destination yi dafay changer mhm. ñetti at yi def nag la destination bi nekk Casamance parce que dañu seetlu ne euh, lu bari ci Sénégal war nañ ko mën a liggéey jaar ko ci caravane bi su ma ci jëlee exemple bi passé bii passé dañu jóge Dakar dugg biir Dakar Wakam Mhm. génn Wakaam dugg biir Dakar encore Géejawaay muy banlieue bi mhm. génn Géejawaay dem Popenguine mhm. jugee Popenguine dem Kaolack euh, avant Kaolack Fatick la Foundiougne après jóge fa dem Kaolack dem Bignona ci biir Bignona ay village yu nekk ci biir Bignona génn Bignona dugg Ziguinchor ba ci cat ba te moo di dem Diembéring Cap Skirring Oussouye ak Elinkine génn fa dem zone Kolda après wiiri dellu si Dakar لا léegi avant caravane bi yëpp di jug mbooloo mi maanaam avant ñuy jug dafa am benn équipe bu ndaw de quinze personnes yoo xam ne ñoom ñooy wër ci gox-goxaar yooyu xool loo xam ne caravane bi bu fa yegsee mën na ko fa def comme activité pour mu jural leen nekk reboisement mhm. léeg mu nekk don mhm. léeg mu nekk formation yi ñuy may zone gox boobu léeg mu nekk ay consultation médicale wala don de médicament lépp loo xam ne daal gox boobu soxla nañ ko te ñun war nañu mën a ah. jéem ba la caravane bi mais mais bu dee jëmee santé la da ngeen di négocier avant wala ñoom ci membre la ci groupe bi. déedéet ci biir association bi daf ci am yoo xam ne wàllu médecine lañ jàng wala moom la ñuy liggéey soit ñu ngi mm. koy jàng nekk ci huitième année. Mm. donc dem ba sori ci. am ñoo xam ne sax ils sont dans le métier. c'est-à-dire ay docteur lañ ba pare ñëw nekk membre ci association bi. Mm. ñooñu bu ñu dee def activité de santé ñooñu ñoo koy assurer. ñun li ñuy def mooy bind kayit yóbbu ci autorité. wax leen ne ñun ñu ngi def telle activité ci tel domaine mhm. en tant qu'autorité yëgal nañ leen ko mais ba ci garab yi ñuy maye foofu sax mhm. daf ci am ay membre de l'association yoo xam ne ñoom ay délégué médical lañ mhm. pharmacie ak délégué médical ñoom ñooy def collecte yi donc bu ñu defee collecte yi trier yi nga xam ne mën ko maye bu ñuy dem ñu yóbbaale ko donc fu caravane bi jaar rek di fa taxaw ñu def fa consultation des fois consultation troisième âge lay concerné ñu may leen garab yu jëm ci loolu hmm. des consultation bi petite enfance bi lay lay concerner waa pédiatrie ñu gunge leen ci des nag day consultation yoo xam dañ koy yaatal pour toute la popula la population hmm. kenn ku ci nekk rek loo mën a gañe rek ci consultation bi nga gañe ko ci bu dee garab yi nga soxla am nañ ko hmm. ñu may la ko buñ ko amul ñu recommandé la koo xam ne boo demee ci moom mu yombalal ni nga koy amee mais ci cadre santé xam nga loolu euh, dafa dafa laaj maanaam ay koppar yu bari yéen yéen fan ngeen di jëlee euh, koppar yooyu noonu cotisation la wala euh, am na ay dons yoo xamante ne day jóge feneen. de lépp cotisation la ñun ñee dajal suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm rek. Hmm? Euh, xool nu mu rek ñu dem uti ko ay ay ay ay ay matériel wala ay médicament wala wàllu lekk wala côté ravitaillement lépp fonds propre ñun ñooy xool rek ne waaye kenn ku comme te am na ñoo xam ne nag ay entrepreneur yu ndaw lañ ci biir association bi ñoo leen wax yéen seen activité économique bu ngeen ci defee bénéfice ci nangam de pourcentage may leen ñu benn pourcentage bi rek ñu waat ko ci Sénégalais yi donc sur fonds propre la. am est-ce que am na ay euh, ay membres yoo xam ne ñoom bitim réew la ñu nekk. ñoo euh, xamante ne xëy na ñu ngi cotiser amul kon ñëpp ñi yëngatu ñëpp Sénégal la ñu nekk. ñëpp c'est des jeunes sénégalais ñëpp. Euh, may rappeler mbokk auditeurs yi maa ngi dalal Abdou Lo moom mu jiite caravane boobu nga xamante ne vraiment ay gestes citoyens la ñuy def di voyager di jàngal gox-goxaan yi di leen jàppale ñu tuddee ko réseau élèves étudiants entrepreneur du euh, noonu la. léegi léegi Abdou question bi mu bëgg a laaj mooy xam nga kuy dajale ay xale di dajale ay entrepreneur ak ay élèves. ak ay étudiants euh, ñoo ñëpp xëy na dañuy bokk ci peut-être affili affiliation politique est-ce que seen association bi dafa am benn but boo xamante ne dafa jëm ci mbirum politique euh, ndax xëy na bëgg nañu soppi ay mbir moom moo leen dugal ci ñuy def euh, randonnée yooyu ñuy def de temps en temps Euh, d' accord bu dee ci biir association bi nag. waaw euh, du ñu fi politique. mais képp ku bokk ci association bi quand am nga appartenance politique. mais bu bu ñëwee ci biir association bi benn parti politique rek moo am parti politique bi Sénégal la tudd. Ah. moo tax foo mënti bokk muy sa parti politique boo ñëwee ci biir r e moom logique bi ngay doxee mooy logique gu defar Sénégal. parce que buñ doon buñ doon jël loolu en considération wala par exemple buñ doon wax ne dañuy traîner tel parti politique bàyyi tel parti politique amaana ñu dem ci gox boo xam ne xëy ci hmm. Sénégal la bokk waaye parti politique bañ àndal xëy na foofu goxam ñu ne kon gox boobu nun duñ ko boole ci suñuy programme alors que loolu mënuñu ko def hmm. moo tax dañuy doxal rek benn parti politique bu tudd Sénégal hmm. ñun ñëpp ñu ànd milité wu ci parti boobu liggéeyal ko buñ ca génnee nag hmm. kenn ku ci nekk am nga sa parti politique noonu aussi lu ci këru diine par hmm. exemple da ngay gis Sénégal dafay am tijaan ki murit ki xaadre ki laayeen hmm. mais bu dee association bi euh, doxul ci loolu ñaari exemple laa la ci jox rek mooy sunu caravane bi passé dem nañ ba biir Popenguine ba ci biir église bi def fa activité de prière activité de messe te amaana majorité ci Euh, réseau bi duñu ay chrétiens c'est des musulmans. Hmm. biñu ko génnee yit biñu tollé Kaolack def nañ ziar ci xalifu lew na ñaseen ak khalif ki bi nga xamné té pourtant amana sax ñu bari ñing ci caravane bi té xëy ci côté diiné diine jokkuwuñu kër googu. Hmm. jokkuwuñu Kaolack. ndeysaan noonu la ñuy defee activité jëmale ko Touba noonu lañuy démé activité jëmale ko jëmale ko jëmale ko jëmale ko Tivaouane ñun dal ce qui nous intéresse la construction collective du Sénégal. mais ce que vous faites donc biñ ci am. dafa nekk geste yu yu yu citoyen yoo xamante ne euh, politiciens yi des fois dañ ciy langaamu est-ce que amul ci nguur gi wala nguur gi ñoo xam ne ñu leen di approché pour que action yi ngeen di wala même opposition bi ah, parce que kuy dajale mbooloo rek politicien mhm. loolu la soxla te gox yi ngeen di dem ay goxu politique la euh, amul ci mhm. ñoom ñoo xamante ne dañuy seet ñëw jàppale leen euh, wala di leen jéem a orienté ci ñoom ci ci li ñuy yëngatu Euh, ok xam nga liggéeykat boo gis soxla na ko ko jàppale. Hmm. xëy na ñun rek logique biñ ci doxee mooy comme li ma la wax léegi koo xam ne rek xëy na ñëw nga pour nu liggéeyandoo pour defar réew mi daal. Hmm. dañ la tijjal suñuy bunt. mais xëy na ñun nag yàlla dogalagul ñu am benn partenaire boo xam ne ci politicien la moo xam nguur moo xam opposition ah. parce que ñi ngi ñëw mais ni ñuy ñëwee ci seen i intérêt bopp la nii gën a féetewu ko intérêt réew mi te comme que ñun hmm. intérêt personnel bàyyiwuñu fi moo tax des doo mën a jubóog ñoom ci ay kàddu moo tax day bari ba ci caravane bi ci mujj caravane bi ci mujj kenn ku nekk ñëw na mais hmm. da gis ne rek ñoom li leen di tax a ñëw hmm. pour jàppale la mais dañuy bëgg jàpp ci yow pour ñoom feeñaale ci amaale ci buntu de résultat. Ah, dañuy gis ne ñoom ànd nañu ak yéen liggéey pour ñu am ci ay sympathisants. mi ngoog mi ngoog te ñun comme doxuñu ci logique boobu. ku ñëw rek da ngay bàyyi sa intérêt personnel te ñu liggéey pour l' intérêt général. maintenant ñoom comme loolu du nekk seen arrangement de fois moo tax du ñu sori ci ay waxtaan ba ciy juboo xëy boobu ba ñu leen di recevoir rek mais yàlla dogalagul ñu ànd ceeg kenn liggéey. Euh, bu fekkee am na kenn ku ci bëgg a poser question Ahmadou Diop wala euh, Abdou Khader ma ma jox la kàddu gi Ahmadou voilà dem naa amu amuñu amaguñu question buñ la bëgg a laaj euh, mais Abdou ñu ngi jëm ci ci élection locale yi xam nga tamit des fois am na ay action yoo xamante ne boo ko bëggee doxal bëgg mu pérenniser vraiment mm-hmm. il faut nga liggéey ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk gox yi mm-hmm. élection locale yi jege na nit ñee ngi fëgg seen dënn te yéen ñi ngeen di dimbali des fois. Euh, hmm. bu ñu leen éduqué wul ba ñu xam ne ñoom seen gox yi dañ cee war a yëngatu xam li ci li fay dox xam ki gën ci ñoom ñu di ci yëngatu. amaana li hmm. ngeen di liggéey yëpp man mu ngeen mën ngeen pare rek mu daal di daanu ci ndox mi. akan ana naka hmm. ngeen di euh, boole seen activités yi ak ay enseignement yoo xam ne dafa jëm ci euh, maanaam par rapport ak Euh, élection locale yi luy yee nit ñi ci ñoom est-ce que loolu bokk na ci activités yi ngeen def bu ngeen demee seen caravane yi ngeen di def. Eh, loolu xaarul sax caravane loolu ci lañ nekk bis bu jot xam nga caravane mm, mm. des fois damay koy wax sunu association bi nit ñi caravane bi rek lañ ci xam xëy na parce que moo ciy drainer li ëpp ci ay nit ba pare mm. gën cee yàgg parce que dafay durer une semaine ndeysaan mais daanaka caravane bi ci activité yu mujj yi la ñun ñu yi ñu démarré woon sax dafa nekk par exemple at chaque weer dañ ci def nos conférence hmm. chaque weer ñu def ben conférence dajale toute la jeunesse conscientiser conscientiser leen hmm. maintenant benn thème boo xam ne parfois c'est un thème politique wala ci côté économie wala ci côté sociétal mhm. ñu waxtaan ci mhm. man mii di wax ak yow ci li nga wax mhm. bokk na ci li ñuy bàyyi loo xel ndaw ñu mooy même politiquement da ngeen war a jël seeni responsabilité ci réew man mii di wax ak yow sànq wax naa la ko nee la kenn ku ci nekk am na appartenance politique man mii maa nekk ci sama mouvement politique boo xam ne man maa ko jiite ko mouvement defar ba pare dugg toujours dans le cadre de defar waaw bu ñu ñëwee ci biir R3 bi nga xam ne moom porté caravane bi foofu yëfi r fay wax. Hmm. mais xam nga ki gën a mën a defar mooy ki am responsabilité am décision. dëgg la moo tax dañ leen di wax ne sax yéen bu ngeen génnee biir R3 seeni gox-goxaat soit ngeen bokk ci ñuy demander responsabilité yi te moo di ngeen di nekk ay candidat ci élection bi mel noonu. Hmm. wala ngeen seet ku am programme bu dëppoog li ngeen di dox ngeen jàppale ko. Hmm. te yéen ngeen nekk ay ambassadeur ci yeneen jeunes yi nekk ci seeni gox-goxaat. moo tax à chaque fois que mu possible bu ñu mënee daje ñu daje def waxtaan bu ñu mënul daje ñu ko waxtaan en ligne boo xam ne dañuy seet naka la ñuy jéem a àndeek ñi nga xam ne c'est des candidats à la candidature ci côté élection wala ci mhm. yeneen ak yeneen nga xam ne daal ñun yooyu dina yombal suñu liggéey ak suñu collaboration parce mhm. que bul fàtte mhm. ñun suñu premier partenaire euh, ñun waa R3E parce que dañu wax réseau élèves étudiants entrepreneurs suñuy premier partenaire c'est les mairies les mairies chaque at bu ñu yeggee c'est les mairies chaque at bu ñu bu ñu duggee janvier fu mairie nekk dañ fay programme d'accompagnement de la jeunesse à la jeunesse xam pour former diplômer orienter maire buy Sénégal bu janvier programme de formation et d'accompagnement de la jeunesse ci cadre économique ak cadre politique formation aussi ko moyens ñun ressources humaines des ressources financières d'un dem ci département après département wala commune après commune jël jeunes yi di leen former di leen orienter ci cadre liggéey muy insertion professionnelle ak ci cadre aspiration politique te moo ñu accompagner leen ci leadership ak le développement communautaire donc yooyu yo ngi ci caravane bi xëy na moo gën mais accompagner la jeunesse ci côté ñuy jël décision politique wala ñuy ñuy am ay ambition politique sax laa bëgg wax. Ah. donc ñu ngi ci ñu ngi ci depuis fort longtemps bi ñu commencé ba léegi ña nga ca. ndeysaan mais yow yow da ngay jogante ci élection locale yi di ñëw. Eh, déedéet <laughs> malheureusement. <laughs> mouvement defar daal bokku ci yow bokkoo ci ñu bëgg géejawaay. déedéet bokkuma ci. ah waay pour le moment. Abdou nag loolu paradoxe la <laughs> yite sa mouvement di wër ci réew mi di wax nit ñi ñu yëngatu ci am ay gestion <laughs> maanaam. xanaa eh, yëngatu ci mbir mi xanaa ma sàcc xanaa ma sàcc ma wax la. waaw ca wax ma wax ma. <laughs> xanaa xanaa xanaa ma sàcc wax la parce que parce que parce que sama waajur bu jigéen bi ma jur. <laughs> candidat la ci mairie bi. donc xam nga boo ah, candidat te da koy opposé. <laughs> ah waaw waaw waaw waaw kooku mooy kan. dañoo dem bay jël euh, euh, sama Aïssatou Gueye. Ah, soxna Aïssatou Gueye mooy sa waajur bu jigéen ndeysaan. waaw te te te moom dafa nekk candidat pour jël maire bi dafa jiite moom tooyul mouvement de développement communautaire yàlla def mu yàgg accompagner les femmes. ndeysaan ndeysaan. ba ñoom ñëpp ñu ne ko yow nag ren da ngay bokk yow nag ren da ci ci ci ci jogante yi bi. mu jël mouvement bi dugg ci biir ko waaw mu jël mouvement bi dugal ko ci biir ci biir coalition bi donc nekk candidate a la candidature pour la mairie de Médina Gounass biir Guédiawaye donc ñun ñu ne garaawul nañ ko nañ nañ nañ accompagner programme am rek teewul nag ñu nekk ay kiyam de teewul ñu nekk ay ay ay kon da nga koy yàqal ay na laa ko eh, déedéet du ma ko yàqal ndax ah yàqal ko nag jàppal ndax li maa ngi xaar bu ma waxee programme bi ci tàmbali bi ba ci jeexital bi lan lay doon nee naa ko du tax ah. Euh, doon wéyjur taxul ne ñu ñëw rek accompagner loon ci gumba noonu noonu déedéet da ngay teg programme bu leer buñ ci àndee liggéey buñ ci àndul man sa candidature nga macha allah <laughs> te loolu daal mooñ ci tere bokk macha allah macha allah donc loolu wane na <laughs> donc donc nga xam ne engagement bi dañ koo doon dëgg la macha allah macha allah donc nga xam engagement bi dañ koo doon voilà donc euh, maa ngi lay gërëm vraiment Abdou xam naa bu fekkee ne mën nga ñu communiquer mm-hmm. seen euh, seen prochaine excursion kañ ngeen di defaat caravane kañ lay doon ak koo xamante ne daf leen a bëgg a rejoindre bokk ci seen euh, yëngu boobu ngeen di yëngu di jàngal mu doon professeur wala mu doon sax koo xam ne daf leen di jàppale rek xam ne li ngeen di def metti na mu bëggal hmm. dimbali leen mu ne hmm. xaaral ma jàppale ndax li am na hmm. solo parce que am na ñu koy def ci réew mi euh, nga nga nga wax ak ñooñu naka lañ leen di jotee ak lan mooy doon euh, prochaine étape bi tournée yi mm. eh, ñi ngi a defaat benn tournée nii dem ba dem ba dem ba Casamance yàlla dafa dogal ci biir caravane bi passé mm. ñu dem ba dugg benn il boo xam ne biir Casamance la nekk ci biir Casamance ca àll ba benn île boo xam ne yàlla dafa def amul courant ba léegi mm. eh, amul dara ci infrastructure bi ñëwee ñu waxtaan ñu ne ñun daal nañu ñëw utal leen ay solaire ak yu mel noonu nga xam ne ñoom dañ ci nit bu yàlla hmm. dina def incha allah décembre ñu dajale utal leen matériel yoo xam ne hmm. yenn yi wàllu lampe solaire lay doon hmm. wala yeneen ak yeneen moo xam ay basan la moo xam ay banc la matériel yoo xam ne daal ñu di leen ko toppatoo mais bu delloo ci bu delloo ci caravane bi allo yaa ngi dégg waa dafa mel ni dafa mel ni pertoon nañu abuloo Euh, ma ma ma ma woowaat ko bu ko defee voilà voilà salaamaaleykum. waaleykum salaam dafa mel ni dafa daggoon. waaw dafa daggoon ñu déglu la nga yeggali waaw. waaw waaw donc boobu mooy bi nga xam ne daal ñu ngi koy waaj mais bu delloo ci caravane bi incha allah ñu ngi ko war a defaat euh, le vingt sept août. Mhm. vingt sept août au trois septembre deux mille vingt deux. période boobu mooy période caravane. ah période Hmm. waaw 27 août 3 septembre de chaque année parce que boobu mooy grande vacances yi fekk ñëpp tëj comme ñi ci ëpp c'est des étudiants ak yu mel noonu. waaw boobu mooy boobu mooy période grande caravane daal bi incha allah déwén nag ñu ngi war a dem Ndar. ñu ngi war a dem Saint-Louis. incha allah voilà avec des étapes de Tëngéej xam nga mer Louga yu mel noonu daal. waaw xëy na dinañ buñ cay yeggee dinañ partagé waat itinéraire bi comme niñ koy defee. waaw waaw incha allah. Euh, ñu ngi ñu ngi jeexal at nag bu ñu jeexal at bi la plupart dañuy nekk ci ci ci évaluation yi mais daal demande bi mi ngi gën a forte ci ñu ngi def bilan mi ngi noonu mais demande bi mi ngi gën a mi ngi gën a forte ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci fi fépp fu ñuy jaar moo tax des fois sax dafay am matériel yoo xam ne loolu dinaa profité ma ñaan ko yéen ñi féete ci diaspora bi te mooy lépp lu ngeen am ci côté matériel boo matériel boo xam ne daal bu ngeen nu ko yónnee ñun dinañ ko mën a yóbbu ci àll bi waa àll bi jariñoo ko ñu fexe ngeen dajaleel ñu ko rek jàppalañ ci yónnee ñu ko moo xam hmm. yëre sedd lay doon moo xam dàll sedd lay doon moo hmm. xam matériel sax yoo xam ne ay xale mën nañ koy jànge parce que léeg-léeg nga dugg ci gox goxaan yi ci biir Sénégal hmm. ku la wax ne lii biir Sénégal la nga weddi ko ndax oh. école boo xam ne table ba sax du fa am oh. dafa doy waar dëgg la dëgg la des fois dama koy fàtte ñun des fois dañuy mujj dajale Ndakaaru suñuy siwo peinture yu bari yóbbu ko ci àll bi di peinturel nit ñi xam nga école boo xam ne daanaka oh. Eh, li fa war a am yëpp amu fa jàng ba nam war a réussir du réussir noonu mhm. moo tax ñun ñu leen di ñaan képp ku nekk ci diaspora bi daal am moo xam jëm ci matériel daal boo xam ne gis na ne lii bu ko yónnee Sénégal dina am ñu ko mën a jariñoo mhm. bu ñu fexe ba xool nu mu yegsee incha allah ku ñu bëgg a ku ñu bëgg a jàppale nag. Hmm. Euh, moom fu koy waay jaar bu bu ko jaaree ci yow xam naa damay profité dénk la ko léegi hmm. léegi yow yaay sunu ambassadeur foofu ci diaspora bi <laughs> comme jot ñu fa woon am ambassadeur léegi yow yaa fay sunu ambassadeur Sine Ndiawar <laughs> kooku daal. boo ma ko nangulee ma dénk la ko lépp lu ñu waay bëgg a mu jaar ko ci yow. <laughs> waaw mun naa naa la naa la servir de liaison. mun naa la servir de liaison ku ñëw woo ma. am lu mu leen bëgg a ma créer contact bi waaw pour que mu ñëw directement waaye may wax officiellement que ni man du ma laal xaalis buy dem ci keneen mais dinaa fexe immédiatement mu am corres mu am mu am liaison boo xam ne day ñëw ci yow directement service boobu moom mën naa ko mën mën naa ko def mais du ma recevoir koppar waaye du ma recevoir matériel euh. parce que mën naa ko soxla seytaane buux ma ma jël ko xam nga damaa bëri ay affaire léegi nag tax noonu laa koy defee dinaa service de liaison bi daal maay seen liaison fii incha allah <laughs> incha allah rabi incha allah d' accord nañ bu baax a baax daal te ah, kontaan bu baax nga nga nga def link boobu entre ñun ak képp ku ci bëgg a jaar mais daal on est ouvert à toute proposition surtout aussi mhm. des koy fàtte xëy na jàppale ci xaalis ak ci baax na mais jàppale ci programme sax dafa gën ndeysaan ndeysaan des fois nit am benn nit des nekk fu sori am benn idée boo xam ne mhm. bu ko partagé nekk fii bu ko jëmbalee mu am résultat bu am solo moo tax des fois même ñun ci programme dañuy wax ne kuy jàppale sax bindal programme boole ci ne nangam nangam doxal leen ko ci réew mi na jëriñ waa réew hmm. ndax daa jàppale des fois dañuy wax xaalis mais xaalis ci mujj conseil sax boo xam ne boo ko utiliser mu la njëriñ jàppale bu baax a baax la léegi waxal numéro numéro bu ñu leen di jotee aussi wala email parce que pour que gars mën koo koo jàpp pour vous dire leen là waaw vous avez email bi avez email bi réseau R3E réseau R E S E A U ensuite R3E. Ah, e. arobase gmail point ah. adresse mail bi. Mhm. waaw bu numéro numéro téléphone je mhm. ma numéro. waaw. benn c'est le 77. 736. Mhm. 63 01. Mm-hmm. beneen bi c'est le 77. 745. 45 57. ak ça voilà donc. Euh, waaw ku ñuy wax Absa Fall moom mooy. moom moo gérer lépp luy wàllu communication wa Absa Fall soxna Absa Fall lépp luy communication ak information ak yooyu yëpp daal moom moo ko gérer. waaw waaw. macha allah macha allah jërëjëf euh, jërëjëf Abdou kontaan naa trop si sa ñëw bi nga ñëw waxoon naa la du yàgg du ma la téye waxtu parce que xam naa ne seen temps dafa précieux <laughs> maa ngi lay gërëm bu baax la sant jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñun ñoo lay gërëm bu baax di la sant sëñ Diawar jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf kooku nekkoon euh, Abdou Lo nekk ci réseau étudiant élève élève étudiant ak euh, entrepreneur koo xamante dégg nga waxtaan wi tey ñoom li ñuy def yitteelal maa ngi lay répéteel seen email ngeen jël contact ak ñoom directement ku ko ci amul te yore information rajo bi wala sama numéro téléphone te nga soxla leen wala am boo leen bëgg dimbali leen boo ma woowee dinaa la wan liaison bi ngay jaar ba jot leen ndax bind naa numéro bi seen email nag réseau da ngay bind réseau R E S E A U après nga def R 3 E. arobase gmail point com wala nga woote ci numéro téléphone bi Absa Fall mooy responsable communication beek mooy gérer mbir mi daal nga woo ko ci 77 736 63 un wala nga woo ko ci beneen numéro 77 745 45 57 Ya naa ni dinañ am Wave ku leen bëgg a jàppale aussi mën nga leen jàppale parce que ay gestes yu citoyen la def wax dëgg yàlla man bi ma ko gisee daf maa jaaxal daf maa jaaxal lool parce que ku ci nekk sa réew ak li mu la jaral citoyenneté bu la pikiiree feebar la bu la pikiiree lépp loo mën a def pour sa réew jëm kanam rek moom ngay def ñii dañuy jël seen plume di bind ñii yore micro yi di di wax ñii di wër ci réseau yi ci télé yeeg ci rajo yi di wax Lool la ñuy def Euh, donc koku moo doon ab loo bu baax di sante diko di len souhaiter bon vent euh, beneen mbir boo xamante ko aborder mo jëm ci mbirum politique deg ngeen ko ci mbirum sit euh, politiciens yi information bi dafa genn demb que ni way yewi Askan Wi ci cadre élection yi ci bir dakaru Njaay wa passef ñom genn nañu ci parce que xam naa jubawuñu ci kàddu xam nga mairie dakaar dafa am ay maire yoo xamante ne maanaam dañoo am njariñ dañoo am njariñ ci réew mi moo tax gars di ko xëccoo boo fa nekkee maire da ngay siiw te loolu bokk na ci mairie dakaar maanaam da ngay am benn ci wàllu politique da ngay téye lu dëgër bokk na ci mairie dakaar bokk na ci mairie Saint-Louis te yooyu du ay caaxaan bokk na ci mairie Thiès xam nga avec décentralisation bi tas nañu yenn mais commune bi commune de la ville nekk ku ko gérer da ngay politiquement ci sax léegi ba maire Touba gis nga fu mu tamit mu ngi am importance ba position bi nga bi nga ne communication bi xalif maa ngi dalal samdi bii ñu génn bi ci ginnaaw docteur Aysatu Jong mu nekk technicien bu mag jàng bari diplôme nekk France jóge France ñëw liggéey ak Ablaye Wade doon ay conseillers u ministre yu bari ñu teg ko ay ci ay programme yu bari mu doxal ko ci réew mi mu dem ba mu ba ba yàgg mu ne dafa bëgg a nekk meeru tiwawan ba ne dem na ba waxtaan ak xalif général des Tidianes nee na toog na ak moom sëñ Mbay Si Mansour waaye nee na tontuwu ko mu ngi toog di ko déglu soxna soosu nag na déglu ne communication bii xalif bi def moom lay tontu fekk maa ngi koy wax ci biir interview ne ko dégg naa ci weewu nag ne Tiwaawan bëgguñu jigéen jiite ko waaye gëmuma woon gëmuma woon parce que dañoo nekk ci benn système kaal boo xamante ne surtout les surtout les religieux yaakaar nañu ne jigéen warul jiite fenn góor duñ ko wax nag ca kaw te duñu ko nangu ah lii ko ci challenge joon ci ñoom mu ne la mu ne la nangu ma xam naa ne jigéen mën na jiite te xalif bi il paraît que jabaram mooy mooy mooy mooy chef de quartier waaw ah, ba ngeen déglu ma bu baax dégg naa ne xalif bi jabaram mooy chef de quartier mais nag tontu bi mu tontu am na ñoo xamante ne ñi yëngatu ci wàllu politique yëpp rafetlu wuñu ko parce que nag sëriñ si bu ñuy wax ci mbirum rélision mën nañ leen topp mais bu ñu jëmee ci liy doxal réew mi ku ci nekk am nga ci xalaat bu doon loolu la ñoom ñu dem nekk président de la république di est-ce que nekk nañu ko nekkuñu ko parce que dañ ko bokk ak réew mi ak nit ñi ci religion bi lañ ñu mën a jiite mais mënuñu ci diine ji la yàlla def ñu am ay baay yu gën sunuy baay maam yi gën sunuy maam ñoo xamante ne ci lislaam rek la saxoon waaye nag taxul woon seen maam yooyu lu ñu gëm-gëm ñu amoon ay ndogal yu mag ci réew mi de du ñu woon ay président de la république ñu ci bëri ci ñoom dañoo amoon problème ak ñi doon jiite réew mi ca jamono jooju muy tubaab yi donc ñoom wane nañu ne njiit mi li ci ëpp ci wàllu religion bi la il faut que nit ñi di jël li ñu am ci réew mi ñu xar ci seen tànk il faut que nit ñi di koy def parce que sëriñ si duñu xiif mar duñu duñu duñu duñu du ñàkk man mii di wax ak yéen sëriñ bu ma si déggoon nga nara ndóol vraiment ma xar sama dépense jox la ci dara te yàlla te te loolu yàlla mooy tax ndax ñoom lañu yàlla la ñuy gis ci ñoom mais bu ñu jëmee ci loo xamante ne ay candidat saay-saay dañu ciy jor ay candidat te ñoom ñuy nangoo toog ak saay-saay soosu ñun bu ñu xamee ne ñii saay-saay lañu ndax ñun sax ñun am na yëfu caay-caay gu ñu xam ba xam ñoom fi ñuy caay-caayoo ñu fekk ko te xam ko te sëñ bi baax baax goo xamante ne mënut a xam fi ñuy defee caay-caay gi nga war a am fulla nag ne ko kii ngay toogal bëgg koo jàppale ab saay-saay la jar na ci ba xeex xuloo nag jar na ko da koy jaral looy parce que ndigal bi yeggul foofa ah. ndigal bi mënut a yegg ci koo xam ne moom xamu ko yow nga xam ko mu bëgg la jox ndigal nga bëgg koo topp parce que boo nee bu ñu nee maire ne père ak yu demee noonu mooy jigéen ñi ci boppam ñu ngi leen di éliminer moo tax soxna soosu na noppalu ko xam ne du doon meeru Tiwaawan ñu ko doon même bu fekkee ne jabaru xalif yi mooy chef de quartier maire Tivaouane moom daal gars yi bëgguñu bëgguñu jigéen jiite ko jaxasoo jigéen a góor nag ci ay jotaay la xew ci ay jotaay lañu koy tere waaye loolu warul téye en aucun cas jigéen jàng te ñu ëpp te xam nga Sénégal li ci gën a grave paradoxe bi mooy ni ñu yebee jigéen ñi jigéen ñee dàq jàng fukki yoon ak juróom-ñaar góor man yalla dafa def classe yi ma jàngee yépp jigen ñu ñoo ci mënon mais gis nga dañuy jek jek am ben jëkkër jëkkër bi commencé parce que dañuy dox ci système patriarcal ñu leen di sonal ba amna ci ño xam dañuy sey goor sax bayyi liggéey quoi ngay nga nga ngay li sa jëkkër ci hôpital mu nek infirmier nga nek infirmière wala mu nek docteur nga nek docteur mu nekk professeur ca université nga nekk ko ñu xoolal dañuy fexe ba jigéen bi day mujj bàyyi liggéeyam di servir ku góor gi tat tat bi affaire bi garaaw bu defee mu téela ci nos di def lu ko neex boo demee nag ba nga xamante ne léegi yaa ngi commencé ñaaw mu dem di di di di di moccaat ci xale yu ndaw yi quoi te doo si mën dara parce que perte noonu la sa carrière yooyu dafa war a jeex dafa war a jeex soo wóoloo sa bopp te nekk góor tegal lépp ci xel tegal lékk lépp ci njub mais doo ko teg ci domination boo xamante ne benn système moo la ko may loolu du yoon yoon position yi ngeen bëgg bu leen jarlu lee xeex ngeen xam ne la pouvoir spirituel à ses limites il se limite à la religion pouvoir temporel bi nag ay nit ñoo koy jiite ñu jàng bu ñu demoon nag ba def le Sénégal une royauté wala une wala wala wala une nation islamique bu boobaa imaam yi ñoo koy jiite ah, parce que am na ay nation yoo xam ne sax roi yi naar dañoo amoon ay saay-saay rek yu bëri eh, yu yu yu bëri doole meloon ni comme yoom yu nu fi yore woon ñu rey yëpp roi yëpp te xam naa sax Lat Joor boo demee loolu la bëggoon bu ko tubaab yi jëlewuloon fii moo nekkoon dernier roi bi fi mujj fu ne xeex na fa di di éliminé ay kii bu ci génnoon yooyu lay mëdd doonaa ñu ne une royauté ñoom Ahmadou Diop di tiitaru rek léegi nag loolu xewul dëkku naar yi nag looloo fa xew bu fekkoon nag ci ci religion yi yooyu la ñu nekk léegi nag ñu ne ñu woo leen ñoom ñu jiite ñu may nekk ci ci lool te dañuy fekk ñoo xamante ne ay nit njaay ñoo leen formé ay président teg leen ci ay yoon ñuy def yëfu saay-saay di woore ba doon ay président bu ñu ñëwee toog ak yéen ngeen ngeen ngeen validé bu ay jigéen bëggee doon ay candidat ngeen ne jigéen du ko fi doone waaw ah, yooyu tamit amul sens foog nit ñi yeewu ci yooyu di ci wax wala nekk président di décider fan fan ngay amee maire xam nga élection locale yi dafa am am njariñ moo taxoon ma ci doon wax sànq dafa am njariñ il faut que ngeen yeewu ci parce que c'est pas pour rien que Macky Sall Macky Sall mi jiite euh, APR de nga ñew di di di di di di set ñan lay duggal ci wa Benno Bokk yaakar pour ñu don candidat tel place ba am ñu fi ñuy kaas motax ma leen di jox rendez-vous suñu émission samedi bi inshallah allah ak marité yu ñaan bu fekke dernière minute amul lu changer parce que fu mu toll ni li dafa tomber ak mu wax peut-être ku nekk nga koy set pour interview ko alors que man la joxone man la waxal pour ma inviter ko samedi ba ñu waxtaan ba jubo j'espère que du changer te fu mu toll ni télé yi dañ ñi ñu ëpp doole télé yeeg rajo yi dañuy commencé nag di woote chaque jour di fëgg di wut buzz espérons que dans deux jours rien ne changera espérons mm. mais ah, moom la ñu moom la ñu jàpp daal waaw ma ma daaneel moom la ñu jàpp ne daal dinañ ko woo waxtaan ak moom parce que moom génne na benn message di wax ne amul benn autorité bu nekk ndakaaru njaay te loolu ku ko dégg suyee moo regard xam ngeen li muy wax moy décider kan la tek maire Saint-Louis ta goroma fa nek mo yore ministère yi Karim wad doon hérité tañ ko doon xex motax ma leen doon wax ne lepp lu ngeen bañalon Ablaye wad jox ngeen ko Macky Sall te gis nga bu ngeen defu leen ndànk ma jox len benen su ngeen deful dank ba Amadou Sall mag ba géwél yi parce que politiciens yi daf ci am ay géwél ño xamantene ay jam lañu rek ñom ñom ñom doomi bour bi sax bour la ba ñu dugal ci boppam li ñu dugaloon ci Karim bopp Karim Wade bu boobaa ngeen jommi parce que booy bi xale la moo tax déggutu leen déggu leen ko ci fenn su amoon yenn âge ba léegi nii jox nañ ko ay affaire yu kenn xamula ah. yu kenn xamul te fu mu toll ni ay oto yu seer la ñuy jënd di ko jaayaat ñoom gis gis ngeen ko fi ba tàyyi waaw gis ngeen ko fi ba tàyyi am na benn oto bu mu yore woon benn ministre Macky Sall moo ko moo moo ko jënd ndeysaan ay ay ay millions la ko jëndee ci moom te xam nga yooyu dañ koy jënd rek pour neexal ah, pour neexal euh, pour neexal président bi booy bi am tuuti xaalis mais xam na ne oto boobu su ko bëggoon jënd moom mun na ko jëndee bitim réew bu gën a bees gën a moins cher mais c'est un moyen de plaire au président comme na ñu daan def rek temps Abdou Diouf dama daan gis ñuy jaay ay tableau benn gayen jënd ko benn businessement jënd ko ba pare xoolal gestu rek mu yëkkati ko jox ko <laughs> madame Abdou Diouf quoi <laughs> ma ne see tet bu demee ci pale bi du am sax fum ko def quoi waaw moo tax nag il faut que ngeen yeewu ngeen am fulla jigéen ñi nag ñoo war a njëkk a yeewu ñoo war a njëkk a yeewu ci réew mi góor ñi dañ leen di fontoo sëriñ si dañ leen di fontoo yeewu leen seen doom yi xoolal seen doom yee ngi def lu leen neex gis nga <laughs> damay bañ dugg ci lu ma lu ma lu ma warata dugg rek léegi damay def attention quoi mais gis nga am na ci ay sëriñ soo xamante ne ni seen jabar yi su ngeen xamoon li ñuy li ñuy def dañuy laamisoo ak waykat yi ñoom Waly Seck ak Youssou Ndour ak ñoom seen gisoon ngeen ko ci jamono yi ñu génn benn événement religieux bu fi amoon seen doom yi bu ngeen xamoon ci yu ñuy dugg te duñ leen ko tere yéen na ngeen nekk ay nit nekk ay intellectuel jàng mën seen jëkkër yi sax da di doon ci famille ñi ci gën a muus yore seen ay entreprise ñu leen di fontoo ci réew mi ne du amu leen ci amuleen leen ci lu ngeen ciy wax bu ngeen ñàkkee fayda gis nga jigéen ñu màkk yi sax ñu ngi góorgóorlu léegi daaw ñu voté te léegi ñu ngi voté daaw ñu dawal oto te léegi ñu ngi dawal oto adduna bi moo yëngatu il faut que nit ñi tolloo ñu utiliser bopp ndax yàlla borom bopp yi lay waxala ah, waxul waxul ak dof yi su ngeen bëggee jël maire yi xeex leen ngeen jël maire yi ñen ñi nak buñu amone yenn pouvoir yi kon kon tubab yi duñu tek lu ñuy tek ñun suñu pouvoir yi ni ngan na lu yëpp ci ñun la yam ñun buñu dajé rek lay feñ bu dajé daje monsieur tubaab changer discours nanu ko bayyi way nanu ko bayyi way su la nit ñi rusee da ngay xam liñu lo la way mais japp jigen ñi di len marginaliser di len deugëté di len fonto warna jeex ci réew mi Ahmadou ma jox la kàddu gi bala may jox soxna Absa da ngeen di gaaw nag parce que da ngeen a yéex a wax ah, su ma leen joxee par ngeen di titre <laughs> ah. non non non du <laughs> question ah, boobu parce que comme waxtaan wi ah. noonu la demee parce que euh, début waxtaan wi parce que da nga commencé ci local yi après daal di invité waa ji. finalement laaj naa kaddu mais joxuma ko. parce que da nga ko laaj loolu voilà yow yi nga ngay def ah aca demal. voilà léegi ñaari kaddu rek laa ciy wax. yokk ci li nga wax parce que li nga wax daanaka kenn mënu ci rek dara. xam nga Sénégal. Hmm. musta nekk un état de droit Sénégal la mooy li may wax rek Sénégal un pays tel pays tel citoyen c' est ça la réalité amul fenn foo xam ne ci wax ji nga jëkk a wax mm. ci tiwaaw mm. amul fenn fu ñu bind ci looy Sénégal mais un religieux fut-il un chef moo war a am le pouvoir dafa war a on ay prérogatives ku nekk maire ak ku du nekk maire Am fenn ci Sénégal mm. amul binduñu ko fenn fenn lañ ko bindu te teguñu ko fenn nag parce que am réew lim di rek loolu lay mën a góob voilà la réalité parce que Sénégal loolu moo fi am parce que affaire bi confiscation la voilà c'est un état dans un état ça c'est inacceptable voilà c'est tout voilà loolu mooy loolu mooy wax ji mais nag <laughs> c'est un sujet tabou au Sénégal. Mm. Voilà. ils veulent en faire un sujet tabou, mais nous devons refuser. Changement, changement am changer une minorité de changer un pays voilà c'est une minorité toute puissante qui a l'ascendance sur l'ensemble des Sénégalais qui sont pris pour des gueux C'est un intérêt donc ils défendent. défendre nous intérêt voilà la réalité un sujet tabou voilà local évidemment <laughs> financement et l'organisation euh, des partis politiques qui localisent en particulier mais quoi loi de quoi mais quand kan est est ci loi quand kan mooy chef bi chef bi kan contrôler Macky et les acteurs politiques quand on les di contrôler parce que ça pouvoir moo gën a parce que tout tout parti politique sont une fait militant pouvoir bu ko neexee na la foo voilà te le ma ki nga ne nek il ne lésine pas sur les moyens il en abuse au contraire dañ ko jox budget bu takku plus de 120 milliards de francs CFA amul fenn ci France cour cour des cour des comptes ci Sénégal mais dafa am une existence virtuelle totalement inacceptable président de la République dañ ko jox des mots extensibles confiscation là qui privatiser la démocratie. des Déséquilibre visible n'a pas tant, mon fils n'est pas. Je suis un peu de casque de Bari, Kermassar. Anarchie, mon fils 15 partis 15 personnes. Quand vous voulez financer, vous voulez Makisal. Voilà la réalité. Parce que l'affaire, il euh, faut qu'il y ait un faux quartier. L'affaire, il faut qu'il y ait un faux quartier. la majorité des sénégalais surtout des jeunes jëlaguñu ba naga ni seeni carte d'identité voilà joxuñu leen dara la leen jox te dara du ci mujj voilà la réalité au Sénégal voilà merci. soxna am sa ab sa. waaw Ndiawar. Hmm. maa ngi lay nuyu. di la ñu ngi lay fay ak euh, soxna Rama ñu ngi koy seet. Euh, Ndiawar. Hmm. sànq sànq dama la dégg ngay wax ci coalition Yewwi Askan Wi ak euh, problème bi ñu am ak waa taxawu Dakar ak yooyu hmm. mais mais waa euh, nu mu tudd waa Pastef yi nekk euh, Médina cellule Médina ñoom kitewuñu coalition bi dañu def benn genre recul hmm. pour waxtaanaat ci yeneen quoi hmm. mais mais kitewuñu coalition bi d'après lu ma ci donc ñawar euh, mm, ma bëggaat ñëw si li nga doon wax sànq si si jigéen ñi quoi euh, taxawaay bi am bi ñu war a am politiquement ak ci yu bëri suñu réew hmm. même dans les partis politiques pour nga gis jigéen bu engagé wu ñeme affiché wu dafa jafe Sénégal hmm. parce que li nga ci wax sànq moo si am dañu naan seen jëkkër yi quoi dañ leen di euh, dañ leen di baare ci yu bëri baare mooy seen ñu assumer seen rôle de femme carrément munuñu ko ak politique bi ñu nekkee munuñu fes ñu bëri nanguwu ñu jël ay position pour dëggal loolu nga wax mhm. maintenant jamono dafa toll foo xam ne ni réew yi ñu nekk ñu xam nañ ci dara place bi ñu teg jigéen ak xale mhm. moo taxit loo ci gis ñoom gis nañ ni day mi ngi dox ndax place bi ñu teg jigéen ak rôle bañ ko fa jox du dëgg mhm. ñun nag yaa ngi koy wax léegi les femmes saoudiennes ñoom bërki dem boo njaay la ñu commencé dawal oto am benn happiness bi mhm. waaw parce que jamono moo ni toll yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba muy wax wax jooju ca contexte bala sax mais ñun suñu njiit yi tey dañu comprendreul fa mu doon waxee jamono jooju ak époque bi ñu toll loolu dañ ko weesu jigéen du jiite loolu loolu loolu époque boobu ak contexte ba la woon ci man boog ci li ma donc jigéen ñi mun jàpp naa ne ku ci am compétence sab njàng may la ko mën nga nekk fu la neex jiite loolu warul am benn problème mais maintenant comme te Sénégal tout est tabou mm. lu bëri duñ ko waxtaane moo tax it dañuy chaque jour dañuy gën di marginaliser mm. jigéen ñi ci ñi ko nangu mm-hmm. ñi ñi féete au niveau du Sénégal les femmes leaders nga xamante ne nanguwuñu assume hmm. mais suñu assumer wul femmes yi nekk ci diaspora bi duñ fi jeex bëri ñooy ñëw assumer rôle yooyu de hmm. parce que fii moom dañu daañu hmm. loolu moo fi am ñoom ñu nekk au front ñoom ñu nekk nu mu tuddati ci ci ci fa fa mbir may xewe nëgam ñoom bu ñu nanguwul jël seeni ay responsabilité dindi yenn yu bëri démystifier yenn yu bëri seen bopp yi day panel yi ñu bokk jigeen ni sax da ngay ñew ñu ne la nga ñuy xuloog seen jëkkeer yi ndax da nga nu dee politique nga demoon nak reer beeg yoyu détail yoyu mm. deugal ni nu mu tuddati société de patriarcal bob ngay wax mais ga loolu bala balaa mu koy dindi suñu xelu jigeen ñi sénégal ak ak goor ñi dina jafé loolu mom xamna fokk jigeen ñi tak seen sër yi pour mëna a xeex loolu pour mën ko fa dindi mm parce que ñoom parewuñu pour pousse pas joxe seen place mais pour pousse tuuti xajal seen soxna yi nga xam ne bëgg nañu de njawar ma def benn parenthèse allemagne hmm. l'ancienne ministre des forces armées euh, allemande fii hmm. elle a six gosses wala sept jëkkëram modern hmm. moo doon assumé l'homme au foyer te jëkkëram dafa jàng am ay lijaasa ni moom mais moom il a préféré mis à l'écart son carrière épouse jabaram Allemagne fii hmm? elle a sept sept hmm. mais mi ngi nii tey moo représenté al représenté defe naa les les allemands wala truc bu nekk seen seen fële na le euh, euh, union européenne wallaay wallaay dégg nga hmm? xajalul woon mais nag njawar nga ma mais tubaab yi góoru tubaab suñu góoru africain ci yenn yi ñoom amuñu ci problème seen jabar yi ñoo leen ilif ñoom amuñu problème boobu amuñu complexe boobu mm. amuñu complexe boobu mm. dóoru tubaab amuñu complexe boobu donc Ndiawar pour daaneel yaa ngi wax sànq ci Amadou Sall mm. Ndiawar man say prédiction dama koy faral dama koy ragal parce que loo fi prédiroon am na champ politique bi li nga fi waxoon yëpp am na mooy Aliou Sall mooy magam la dina fi dina ko fi jox ay nomba tànk yoo xam ne il sera un homme puissant waxoon nga ko fii incontournable ba mu am hmm? li nga fi waxoon lépp prédiction yooyu yëpp dafa am dañ ci teg suñu ba dund ko maintenant kii ji nga tudd nu mu tudd Amadou Sall hmm. ci loolu nga ci wax njawaat Amadou Sall bërigo ça se décide waaw moom ça se ne un milliardaire te kenn xamul ci ci ci ban magie mi ngi liggéey di am ay marché nee nañu jaaykatu oto la lu nekk mi ngi ci waaw te Sénégal xaw ma sax pare na jàngam xaw ma mi ngi Sénégal mais moom ile est dans tous les sauces mm. te dafa nëbbatu mi mm. ngi ci suuf di def li muy def parce que fesul mm. mooy li nga mais maintenant cette fois-ci le la masse populaire le peuple dina ah. détourner boobu boobu boobu boobu projet. Hmm. parce que duñ ko nangu tamit. ah loolu la ñuy wax rek. si. danañ ko <laughs> nangu <laughs> bu nee la bu nee bu nee la du ma duñu ko nangu rek ah. mooy ah. mooy ñàkk na pexe. Sénégalais bu mu dara du wax de day ñëw rek réagir. waa dinañ réagir kon. waaw. xam nga xam nga xam nga famille xam nga li ngeen li ngeen xamul mooy <laughs> uh-huh. belle famille yu Macky Sall uh-huh. soxna Marème fay Sall uh-huh. gis nga ñoom seen famille c'est une famille nombreuse est-ce que xam na sénégalais xam nañ ko minimum mën nañu vingt ñu bokkal baay ak nday xam nga jëkkëru yaayam moo doon moom moom la Macky Sall neexalee Petrosen waaw féeta léegi léegi la ko mm-hmm. léegi la ko euh, euh, kii fippu Saint-Louis ñuy Maritew ñaan jël parce que Maritew ñaan mm-hmm. mooy PCA Petrosen ci moment bi ñuy wax nii mm-hmm. mais gisoo ñoom Adama Faye ak ñeneen ñi mais bëri nañu de ñoom ñëpp am nañu ay poste ñuy yëngatu ku ci yëngatu poste rek yaa ngi sa business ci souf comme ni Amadou Sall di defee. dëgg la. mais yéen xamu leen ko. dëgg la parce que Karim Wade dafa ñëwoon rek siiw. Ablaye Wade ñaari doom rek lañu ñëw jox gars yi di di di di telli telli léegi nag li ngeen bay. bañ y' a plus de cinquante personnes de la famille yoo xamante ne ñu ngi ci bundaandaat bu neex te te kenn yëgu ko. parce que l'erreur l'erreur bële dafa feeñ bii nëbbu su leen ko génnewulee du mm-hmm. ngeen ko xam. Mm-hmm. Mm-hmm. mais yooyu njawar sénégalais war nañ ko xam nag te am na luñ am na luñ ci xam mais defe naa liñ ci umple sax moo ëpp. sa invité yaa ngi koy wax man kontaan naa trop ci li mu osé def bëgg a nekk can euh, def candidature indépendant ca mairie Saint-Louis maintenant njawar wax bi mooy est-ce que les la population wala wala les sénégalais ils sont prêts pour élire benn technocrate parce que Sénégal foog nga nekk politicien bu rëy làmmiñ mën a wax lu dul dëgg mën a sàcc pour ñu fal la c'est ça xam nga xam nga lan mooy problème mu technocrate waaw dañoo nekk technocrate mais benn domaine rek la ñu maîtriser. xam nga maa ngi ci doon waxtaan yàlla xam na ko barki démb rek kenn kuñ ciy tudd du ma tudd turam ku jàng bëri xam-xam commencé na sax bëgg am dara ci politique. mais des fois gis nga boo xoolee technocrate yi dañu doon ay ñoo xamante ne dañu am connaissance ci benn domaine dem ci verticalement xam ci lu bari. Sénégal moo soxlawul l'homme providentiel amatul fenn benn nit mënut a defar lépp mm-hmm. gars yi ñoo war a booloo comme début bi xam nga début bi bi ngay dégg Pastef li taxoon mu bëri doole mooy mm-hmm. noonu la doon noonu la ñu yaakaaroon ne noonu lay doxee dañu dem ba fu mu toll ni ñu ngi bëgg a commencé di def Ousmane Sonko comme Ablaye Wade mm-hmm. loolu du marché soo bëggee mel ni Ablaye Wade rek yàqu nga parce que lolou da lay yóbbu ci ngay set legui nak kan ngay collaborer kan ngay xeeb ku ñepp na yawar ak nga joom yonent amatul l'homme providentiel n'existe pas on gère un pays dans la collégialité ñepp ci bolo manam connaissance yi dajalo ku ci nek sa domaine ñu andando ci ben mën ko sax corporation mhm. liggéey réew mi mu def ku nek mhm. après à la fin ku nek président baxna Amérique dañ ko teg ci yoon yoo xamante ne ku doon président baax la même benn noir boo xamante ne buy génn ci biti xàmmewuñu ko ñu def ko musiba mën naa doon président bi. Mm-hmm. loolu la ñuy teg dafa soxla ay ay Merkel mooy président ñu ciy nganda nganda loolu ay ay waxu dof la. parce que ku fa mm-hmm. teew bu defulee dara ñu summi tubay ji dóor ko. mbir bi noonu la demee. ay Israël noonu la demee xoolal bet eh, Netanyahu ñu ngi koy sonal xoolal France Sarkozy ñu koy sonal. ku def loo warut a def rek ñu sumi sa tubay tàpp ci bu baax bàyyi la nga demaat doo toog doo taxaw waaye toog ci réew mi su benn kenn dénoncé dara réew moo xamante ne ku dénoncé rek ñu def la superstar uh-huh, uh-huh. naan moo ko yore kii man daal kii buñ ko buñ ko falee mu defar réew mi benn nit mënut ta defar réew mi parce que pression bi nekk ci ginnaaw benn nit attanu ko. surtout Sénégal. bu ngeen xamoon pression yi yi nekk ci ginnaaw su ngeen ko xamoon. mara buy nekk ci ginnaaw yor seeni ay pression ak seeni ay taalibe mhm, mhm. di créer ay situation de non droit et de passe droit waa extérieur mhm. soxla dara sa famille di la def pression politiciens yi ak opposition bi song la di la def pression loolu benn ni da ko mën déedéet mënu ko as mënu mënuma ci mënuma ci dara rek Barack Obama dafa doon président États-Unis tantam rakku yaayam nekk ci mhm. dëkk bi ci situation illégale gars yi pampan te xoolal ndaw si yàgg na ci réew mi amul këyit ah, kenn faalewu ko mhm. mais comme que léegi jarbaatam nekk na président rek affaire bi feeñ gars yi ci mhm. saasi lañ ko jëli ne dañ koy delloo pour créer rek un buzz wane la ne dëkk bi sa nijaay nekk président ak kii moo fi am droit mooy dox te loolu da lay gën a exposé sa mbok bu bu amee position de power dalay lay gën a exposé gars yi pam pamti pamtee ndaw si ndeysaan dernière mhm. minute la ñu ko defarale ay affaire xam nga tam rek lay bon volonté lijjantil ko mhm. noonu la demee yàlla yàlla mhm. yokk sutura waay maa ngi yam foofu soxna si jërëjëf waay Sénégal fokk ñu teg ay waxal jigéen ñi waxal jigéen ñi ñu góorgóorlu daal bañ a ragal góor ñi dañuy nappe rek te xam nga ma xanaa xamoo jigéen ñi ñoo jigéen mooy seefu góor boo gis waaw yow koo xamante ne boo ñëwee sa kër moo lay jox nga lekk su ko neexee posone la ndeysaan wallaay ah? dëgg la neexee posone la te kenn du ko xam moo yow boo bëggee paase moo yow mënuloo paase moo lay paasel soo bëggee fóot mënuloo poos moo lay fóotal soo naaysee moo tax moo lay siireel sa dàll ah, ah? sa kër bu naaysee nga mun fa indi ay gan moo ko raxas ba mu set gaayin mais kooku du sa chef ah ñu ko nangu bëriwul de ah mooy sa chef ah. en Afrique moom non non ñu ko nangu bëriwul ah, njawaat loolu noonu mi ngi noonu yàlla soppi xelu Sénégal ba ñu ay njiit yu bëgg seen réew amin yaa rabal alamin amin jaajëf njawaat jërëjëf gars yi ñu yemal foofu waxtaan wi di leen euh, baalu àq képp ku fi dégg loo xam ne neexu la ñu ngi jéggalu di gërëm Abdoulo mi jiite caravane bi euh, réseau élèves étudiants entrepreneur te joxoon naa leen léegi seen euh, email réseau r3e arobas gmail point com wala ngeen woo leen seen téléphone 77 736 6301 77 745 45 57 nañuy encourager nit ñi même bu fekkee ne dañ leen di woo sax wala yónnee leen email vraiment féliciter leen encourager leen day baax daal waaw comme man ni ñu may defal des fois moo tax may gën a gën a sawar sax waaw mais ñu la ignorer rek ay gis gars yi après mën nañu sax décourager quoi ñu encourager lu mu baax di gërëm Ahmadou Diop intervention di gërëm ñëpp di leen ñaanal jàmm di gërëm Abdou Khader di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen jaboot di leen jox dox daje incha allah samedi ñu dalal professeur Mary Teuw Niane incha allah sinon altine on se retrouve dans une euh, nouvelle émission l'info autrement jërë ngeen jëf incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah Ah, samakandi déglu dégloo ci Sunuker FM sunu rajo la

des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ko chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement On est surcharge bu 10. ba ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo bureau la première fois ne ma toogal muy gouvernement ma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 comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement.